अच्छा जरा jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bi di wasaare ak Dakar bi di amaat nañu mbégte ak kontaan te jàkkaarloo ak yéen comme ça su nekk nañu koy defee xew-xew bu amee dañuy wàcc si terrain bi daal di gisee ak askan bi waxtaan ak ñoom gis ne fan ñuy dugg nag metti na lool si ñun muy ñi nga xam ne yor wàllum transport bi daal di grève ñetti fan ci tey dinañ gis nag ñi nga xam ne ñooy clients yi waxtaan ak ñoom dinañ gis tamit ñi ngi yor wàllum transport bi dinañ gis cak-cak yi dinañ gis borom sareet yi waxtaan ak ñëpp ndax kat dama koy faral di wax saa su nekk seen mbégte mooy suñu yitte ba tax li ngeen di bëgg rek la ñuy def abu bu baaxee ñu daal di dàq fas bi jubal ba case ba wala ñu jubal ba fu ñu neex daal di gisee ak ñëpp daal di tàllal leen suñu micro ñoom tamit ñu wax ci seen xalaat ndax ku nekk am na ci xalaat boo war a wax kàggu ay dégg sax ma naan kàggu namu naa ko nag waaye nañ dem. fay naa la si. ak ci jàmm. si la. Euh, cuq dose la. cuq dose waaw. ñu gis ne jamono yu ñu nekk ñetti fan yi réew mi tàng na trop metti na lool yow naka ngay dundee grève transport yi. ah waaw waaw waaw waaw transport yi kat ni ma koy dundee mooy euh, am na loo xam ni euh, c'est à dépasser li ñu li ma dégg ñu wax ni moom la ñuy grève quoi muy ko euh, police daf leen a sonal ci xaas bi ki am na loo xam ni bàyyi yaa booy c'est à xam naa ay policiers quoi mais xam naa ay policiers yu digne yoo xam yu am fulla comprendre nga yoo xam ni xam naa ni ñii soxlawuñu dërëmu kenn. comprendre mais tamit lu doy ni police war aar nit ñi war a protéger nit ñi waruñoo lekk dërëmu kenn waruñoo lekk ñàkku kenn te beneen bi mooy yombal xiyaam day ñëw nit ki sooy jël xaalisam wu jël ko ci lu sedd xolam comprendre nga te beneen affaire tamit am na oto yi visite seen visite technique yi ñoom tamit ñu ngi dof dof ñu ngi grève di bandi bandi lu di ñàng ñànglu ah appareil ngi ñëw seen dara daa baax ñoom dañoo am visite technique amuñu benn këyit kalandoo yi nag lampe vert yi wàcc ah euh, rétroviseur yi weng su leen policiers yi jàppee ñu dee. Euh, euh, no ñëpp ñëpp affaire bi jikkoy sénégalais la tant que changé wuñu gaal seen ni mu bindoo ak ni muy demee dara du changé. nuyu naa la. maaleykum salaam maa leen di fay. ngi ci sant yàlla wër. tur bi nan la. man Alassane Ba laa tudd. Alassane ñu gis ne ñetti fan yi réew mi metti na lool ñu gis grève li nga xam ne moo di mbirum transport bi yéen borom càq yi naka ngeen koy dundee. waaw di ko métti lu rek di ko métti lu comme ñëpp parce que affaire tamit ñooñu ay pere de famille lañ ñu demee bay grève gën a lu mais daa fekk ñu sonn quoi ñun ñii borom càq yi noonu lañ sonnee mais dañoo gëm yàlla rek jàpp di liggéey quand même gouvernement war nañ dimbale population bi quoi son nañ trop vraiment son nañ trop et puis ay ministres yoo xamante saa yi kenn du xam li ñuy wax parce que démb maa ngi seetaan conférence a presse bu Mansour Faye di wax mais au lieu moom mu ut solution mais da ciy yokk problème bi da koy gën a yokk quoi en fait parce que ni ma dégg muy waxee day gën a yokk problème bi parce que maa ngi dégg benn côté mu naan non camions yi dañuy yàq tali bi dañ leen war a wuutal heure bi ñuy daw xam nga yooyu du waxu kilifa quoi en fait situation bu amee dañuy xool nuñ koy saafaraa solution am ku ne dem liggéey nga lii dafa dafa metti torop yi nga xëy war a liggéey amoo oto loolu dafa metti te am na ñoo xamante ne tey buñ xëyul pour ñu dundal seen njaboot problème la loolu lépp dañ ko war a sóor réew mi ñun ñëpp ko bokk ñun jeunes yeeg mag ñi ñëpp ko bokk dañoo war a xool li avancé loo dëkk bi ñun ñëpp ñu nekk ci mais pas ñun ñu nekk ci lu avancé loo dëkk bi ñoom ñu nekk ci luy reculé loo dëkk bi non loolu du yoon loolu du yoon quoi. ndax seex ñu gis ne ñetti fan yi grève li nga xam ne moo di transport yi yen clients yi naka ngeen koy dundee. ah métti rek c'est parce que ñun ñii ñëpp ay ouvrier lañ te dañuy liggéey chaque jour dañuy joobi mais xam nga grève bi tax na fan yi yëpp liggéey wuñ ah. waaw ah ndax boo xëyee dem tamit pour nga wàcc problème lay doon doo am lu la andi quoi voilà dëkk bi moom doxul ku ne xam ne ne doxul ñëpp ko xam xale ak mag ñëpp xam ne dëkk bi doxul. Mhm. ngay wax nguur gi. non nguur gi man li ma leen di wax mooy bariwul xam nga. état cuune la ñu am quoi amuñ état boo xamante ni day jël ay responsabilités voilà suñu état bi ñoom xam nga seen bopp lañ fi nekkal quoi ak arrogance bu mat sëkk nag lañ àndal si li ñuy def waaw faalewuñ population bi xamuñ nit ñi ñooy ñan faalewuñ ñu daal ñoom gëmuñ gëmuñ Sénégal gëmuñ seen bopp wala am nañ peuple bu baax nag mais amuñ ay njiit yu responsable njiit yu responsable lañ manqué quoi moo fi am. gëm euh, dina yem si trois jours yi wala. non man li ma leen di wax moom. mooy maanaam comme dugg nañ si moom nañ si dem ba jeex rek luñ si am jël. lii moom baaxul ma mais su ma sañoon moom parce que maa ngi ciy gis ñu ngi si ngi gis suñu bopp bu baax a parce que fan yëpp ay ginaar rek laay reeree te lu ma gëj a def nag laay ginaar kese laay añee laay reeree waaw. boo sañoon grève bi du gaaw a du gaaw a jeex ma parce que maa gis sam bopp ñu ngi gis suñu bopp ñu cag-cag yi waaw parce que liggéey moo amatul ah liggéey moo amatul dañoo wër liggéey ba sonn yàlla séddale ñu nag ñu càq-càq ñu jël suñu sagaru moto di càq-càq pour am ci dara kon grève bi moom arrangé na xaw na ñoo arrangé benn côté nag waaw. <laughs> salaamaaleykum kilifa gi ziar naa la. waaw ah, delloo siyaare noo def san Serigne Touba. bi nan la. Sadikh. Sadikh Sadikh ñu gis ne trois jours yi Sénégal métti na trop ñu gis ñi nga xam ne ñoo yor wàllum transport bi seen grève yi ñoom naka nga ko gisee. waaw métti na trop xëy na dañuy laaj tamit seen droit parce que tali bi dafa ñun ñii di wax ak am na ay mbokki chauffeur yoo xam ne ñu ngi si tali bi. suñuy grand frère wala suñuy mbokk xam nga ñu si tali bi et puis di lu metti en plus tamit doy na waar quoi gars yi nañ génn wax ak ñoom parce que trois jours da ngay bëgg a da ñoo xam ne duñu liggéey quoi loolu metti na man instant damay gonti fast food laay def su may gonti nii damay des fois mooy damay gaare moto yi dox ba sëñ Fallou. nga ne grève bi dina yem si trois jours yi wala. Ah, loolu la ñuy ñaan yàlla na gars yi génn wax ak gars yi rek waaw ah, ah, waaw ñuy jàppalante parce que àdduna moom lépp jàppalante te la waaw. waaw parce que fii moom loo gis rek waxtaan la quoi buñ toogee waxtaan dinañ trouver benn terrain d'entente xam nga ñu juboo quoi franchement metti na trop di laay. ñu ngi sant baax soxna si. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm ba alhamdulilah. tur bi naan la. Ibrahima la. Ibrahima daa mel ni da ngaa dox ba sonn de. waaw dañu am lu ñu parce que mënuma comprendre ñun dañuy grève mais grève pendant ñaata jours ni ñuy jóge te nga tëngal laa jóge tey suba ba bund Pikine 2500 laa fay ba bund Pikine jëlaat saret mu indi fayal 300 fii jëmaat kaas ba et li ñuy liggéey kon lan la ñuy jëriñ suñu dirigeant ñun lan mooy seen njëriñ quoi man damay posé question ñun suñu dirigeant yi lan mooy seen njëriñ suñu ñun ñun askan bi amaluñu njëriñ nañ ko war a dee quoi imagine toi ni ñu ngi liggéey mënuñu liggéey seen xaalis yaa ngi taxaw si àll bi 3 jours kenn liggéeyul ñi xam ne chantier lañ yaakaar ñun ay homme de chantier lañ amuñu lu xëy dem liggéey amuñu oto bu ñu yóbbu mais nan la ñuy def nan la ñuy def kon ñun suñu dirigeant lañ xoolaat ñoom li ñuy def lan la quoi bu bi imagine toi lii mooy poussé jeunesse bi mën nañ si lu ne nañ ko war te dee mën nañ dugg si lu ne te am na ñoo xam ne mënuñu mënuñu muñ mu métti ñu gérer ko par force dañuy jóg réaliser bi ñuy jóg di réaliser lu ne mën na mën na leen si poussé kon nañu dimbali quoi lii dafa meti xoolal lii kenn kenn kenn demul li ñu di dox ay mag ay xale neexul ci xol nañu dimbali te yàlla tax na nañu dimbali te yàlla tax. d'accord yow xalaat nga ne grève bi dina yem ci 3 jours yi wala. mën na ko romb parce que ministre lu mu wax ku mën a liggéey na nga liggéey ku mën a grève na nga grève loolu ji dina ko wax mais mën na waxee na neen nu bokk ak ku mën a liggéey na nga liggéey ku mën a grève na nga grève kon wax dafa dañ ko war a xoolaat ñii jiite ñu xool nu ñuy waxee ñu xool nu ñuy waxee dama déggoon na benn wax sëñ Moussa Ka waxoon mu ne wax si géerub jàmbur jum sa day yomb lool te dama yaakaar ne ñi jiite da leen jox poste yoo xam ne ni maîtriser wuñu ko moo waral ñuy waxee nu leen neex wala ñuy doxee nu leen neex nañu dimbale ñu sonnu nañ quoi. salaamaaleykum kilifa gi ziar naa la. daal lay dalal ziar. yaa ngi ci jàmm wëlbatikul tuuti jàkkaarloo. la. Ablaye Ndiaye. Ablaye Ndiaye ñu gis ne ñetti fan yi metti na lool ci sénégalais yi muy mbirum li nga xam ne moo di transport yi nga xam ne dañoo grève yow ñeen cak-cak yi naka ngeen koy dunde ah ñun de ñu ngi koy dund bu baax moom ñun moom gis seen bopp moom baa baax na si ñun de wax dëgg yàlla waaw ñun de buñ sañoon moom gars duñ grève de waaye de ñun ñu ngi ciy gis seen bopp moom bu baax a baax a baax waaw ñun de buñ xëyee ñu ngi door waar balaa ñuy wàcc den récupéré suñ xaalis toog waaw temps de moom neex na moom wax dëgg yàlla ñun de neex na suñ côté waaw sareet nga laal de. waaw sareet lañ jël de ñoo xam ne ci oto lañ doon dugg waaw dëkk bi moom dañoo delluwaat 1980 lañ delluwaat fu mu ne nii te lii moom mënoon na ñàkk waaw ñii dañuy kaas ñoom arrangé wu leen wu ñu ñun ñoo ngi nii dañuy fay sareet di yëg man xaw ma kañ laa gën yëg sareet tax. dellu ngeen cosaan. dellu cosaan lañ def ñu ngi mel ni ku nekk Touba màggal ñu gis ne yaa ngi si arrêt bi ñu gis ne trois jours yi metti na lool ci sénégalais yi bi nga xamante ne nii ñu yor wàllum transport bi ñu ngi koy grève naka nga koy dundee xanaa metti rek waaw ndaxte ñiy grève dëgg la seen àq seen yelleef la ñuy xeex mais dañoo war a sóoraale ñun ñi nga xamante ne ay néew doole lan parce que déjà ñi tax ñuy grève seen yaay yi duñ dugg ci transport en commun yi seen doom yi waxi noppi ñun rek ñu ñoo ci sonn ñu sóoraale population bi bu baax su genre yooyu. waaw maa ngi delloo siyaar bu baax jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. bi nan la. Ibrahima Diouf. Ibrahima naka ngeen di dundee grève bi. ah grève bi de moom instant moom moom metti na de metti na trop waaw waaw parce que instant ñu ngi si sa gars yi saret yi lañ dugg te ñemewu ñu paas bu baax waa dañu laaj dèjà ñu fay bañ après boo la waxee dèjà du ñu dugg waaw te ñu nit après fos yi dañ ciy xon parce que xon di dafa seer waaw. d'accord daa mel ni yéen borom saret yéen a ngi gis seen bopp bu baax a baax si grève. moom tane na daa bu nekkoon dèjà wala dèjà cinquante mu gën a baax waaw. yow gis nga ne euh, trois jours yi grève bi mën na ci yem wala. non après moom fu mu yem rek baax na moom cun moom ñu li ngi liggéey ci affaire bi moom ñu ngi liggéey bu baax a baax. Ah. waaw daal fu mu yem neex waaw waaw ñun moom yàkkamti grève bi ñu gaay yi ñëw moom. waaw. fii ak kaas ba ñaata la. fii bu kaas ba. boobu après saafara la. waaw saafara la waaw. moom métti na la moom moom ak Serigne Fallou moom métti ndax parce que ñii moom yëg nañ ko ndax ñun ñi à chaque fois bu ñuy génn oto la dugg yëg nañ ko lool ñoom bu ñu suñoontee duñ grève ndax loolu mooy seen liggéey ci talam la ñuy yëndu guddee bëccëg waaw na gars daal nañ bàyyi ñu def daal ñu àggal seen liggéey waaw loolu am lu may wax daal maaleykum soxna si nuyu naa la maaleykum salaam soxna si na nga def ça va yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm <laughs> merci beaucoup. merci merci. <laughs> naka nga gisee nag nga dundee trois jours yi nga xamante ne nii ñi nga jor wàllum transport bi ñu ngi koy grève. ah bon c'est pas facile du tout donc euh, man suba ba léegi maa ngi amoon rendez-vous. Euh, waroon dem ci dentiste bi mais li ma dépensé ci transport vraiment c'est exagéré quand même plus de mille francs si sama dem dong ñibbi bi ñëwagul donc c'est pas du tout facile doy na waar daal. Euh, parcelle unité 3. Mhm, fa laa dëkk. ah fay naa la doom. maa ngi ci jàmm. ñoo ngi ci kay. la. man Ami Seck laa tudd. Ami tey sareet nga laal de ñu gis ne grève bi ma mel ni mel xaw na laa sonal. ah man kay sonn naa wax dëgg maa ngi jógee Maris ñëw boo fee dugg fi Touba laa jógee démb. barki démb laa jógee Touba ñëw talaata ne bu àllal ba xam ne ma ñibbi maa ngi nii taggatémbe fi te benn yére bi ma sol laa indi wallaay. ah yàlla daal yàlla na ko yàlla jeexal daal laay ñaan rek yàlla defal ñu jàmm daal ci dëkk bi daal wax yàlla daal man daal lool foofu rek laay ñaan moom. ci jàmm maa ngi si jàmm. tur bi naan la. man Lam Fall. Lam Fall yaay borom sareet. waaw maay borom sareet bi waaw. nga gisee grève bi. ah grève bi moom doy na waar moom wax dëgg yàlla ndax metti na torop metti na si client yi metti si ñëpp waaye nag lu mu mënta ñàkk moom force mu am. même daa mel ni euh, grève bi arrangé na leen yéen borom sareet yi. non pas arrangé sax xam nga waaw d' accord loolu arrangé nañu sax mais itam am na ci ñoo xamante ne bii arrangé wu leen. sant yàlla bu baax. tur bi nan la. Jibi la. saret nga laal de. waaw saret laal laal ñàkk pexe rek waaw. gisee grève bi ak naka nga koy dundee. grève moom metti na trop ndax dox bi metti na xam nga jóge parcelle dox ba buntu Pikine aller retour moom loolu dafay metti mais heureusement bi saret ñooy waaw te ñàkk pexe moo ñu si yéegal nag mais bu amoon leneen li gën lii moom wax dëgg yàlla dañ si yéeg. mais état nag war na waxtaan ak transporteurs yi quoi waaw jéem a xool protocole d' accord bi ñuy signé ñoom ñoom xam nga Sénégal lépp benn la quoi. ngay bi ak la nga ko gisee. metti loolu sonn nañ dëkk bi yëpp saret la instant bi nii dañoo rétrogradé à zéro parce que déjà lii rek saret yaa ngi day partout si kaw tali loolu rek beneen affaire la suñ ci jógee lii loolu beneen liggéeyaat la kon nañ lijjanti affaire bi ñu mun fee jóge sonn nañ trop trop maa ngi ni géej waay laa doxee ba fii. billaahi géejuwaay laa dox ba croisement Cambérène dafa te fas te su may ñibbiwaat damay doxaat xam nga loolu dafa metti métti na trop. est-ce que ne tey grève bi dina yem ci trois jours yi. Ah. ah aw ma si yaakaar de aw ma si yaakaar de bu président waxul aw ma si yaakaar. ay dem liggéeyi ñoom ay transporteurs ñu ngi seen million seen million lañ yor ak seen wala seen milliard tëdd ci yor seen i camion ñu leen di versé. chauffeur yi nga xam bokk ñu benn syndicaliste nañ dem liggéeyi waaw gis naa yenn chauffeur nag ñu ñëw di yàq oto jàmbur yi. mais man fi ma nekk fii ku fi ñëw yàq fi oto di ma rey wala ma rey la waaw moom moomuñu dëkk moomuñu réew mi ay syndicaliste dong lan kun fi yebal nag ni la demal nga toj oto ba nga toj oto jàmbur yow yaa koy wéetoo ku bëgg a liggéey demal nga liggéey voilà ñoom seen bopp dong la ñuy kaasal waaw wax ji wax ji yëpp seen bopp la ñuy kaasal ndax bu ñu kaasee ñu jóg ñu compal leen ñu daal te seen gémmiñ noppi chauffeur bi nga xam ne ay embossement leer bu toogee ñaari fan liggéeyut du am dépense kan moo ko jox dépense ñoom ñoo ko jox dépense wala kan moo ko jox dépense nan dem mooy dem dem yeewu dem liggéeyi. bari na parce que fi ne yaa ngi nii carte grise yi léegi plaque de numéro yi boo koy changé da ngay problème quarante millions gaa yaa ngi koy yóbbu 75 mille francs dëkk bi montage yi bari nan ak ah, transporteurs yi ñu ngi war a embauché emba kenn embauché wuñu oto foo taxaw ñu sabola bu demee ba malien bi nga xamante ni euh, mi ngi si dëkk bi yow gis nga malien bi nii tuwaar fa kàlla macha allah ñu ngi si dëkk bi. dañ leen a sax wutal parking boo xamante ne spécial euh, dañ fay gaari seen oto mais ñun mënuñu koo am xam nga loolu dafa métti c'est trop. sareet la indi ja jag jag sareet la indi ja yow dañ lay yéegal yow yow yow ak ni nga ni nga ni nga musóoroon ni ñu lay yéegal pour lan la. mënuma mënuma. xale Ndakaar yu jàngu leen yéegum sareet. eh man bawal bawal laa. ñu lay yéegal sareet. li ma sol la. Ah. waaw naka nga gisee grève bi ak naka nga koy dundee. ne trop si ñun moom vraiment moyen de transport bi dañuy obligé dox ba gis nga. sama genre duñ sol lu jot. kañ nga gëj a yéeg sareet yow. yàggul nag yàggul man ba. xalaat naa ne grève bi dina yem ci trois jours. non je pense pas nag vraiment ministre bi war na see jël ay décision quoi parce que son nañ torop